amna kiniti yalla subhanahu wa ta'ala ko wax ni mbollem tere yewe yep duggu na ci bir alquran mbollem alquran itam duggu na ci bir fatiha mbollem fatiha itam duggu na ci bir bismillahir rahmanir rahim mbollem bismillahir rahmanir rahim itam duggu na ci bir tombu bagi ci le lepp nek kon xagn day xamle ak wetal yalla subhanahu wa ta'ala gi nga xamni moy lepp amna ñu ni lepp mi ngi ci bagi ndax li ñu namm ci mindeef yépp mooy yegg ci seen borom te baagi mooy jigal jambi boromam te loolu rek mooy jublu gi nee nañu am na koo xam ni baayam daa amoon ak kees rafetal ko lool saa su duggee ci biir kër gi foon ko buy génn itam noone doomam jooju wax ni faw mu jël tijjikaayu kees gi xool li ci biir ba mu ko defee fekk ca sagaru wurus weex ak benn tomb bu ñu tombe wurus ba way juróom ñëwee mu ni ko damay gis ngay xool lii saa su ne te xool naa ko gisuma ci dara lu dul ab tomb aku sagar mu ni ko tomb bii mooy tomb bismillahi rahmaani rahim ci barkeem lañu nekk xoolal pas-pas boobu rekk ba tey nee nañu ña nekk àjjana bisub gaaw ci dexu ndox gay ca miimu bismillahi lañuy naane bisub dibeer ca dexug lem gay daw ca mimug rahim lañuy naane bisub altane ca dexug soow gay daw ca ha allah lañuy naane bisub talaata ca dexug sàngara gay daw ca mimug arrahman lañuy naane bu ñu naanee ba màndi dañuy naaw junni at ba àgg ci doju wu rëy wu misk ndoxum salsabil nekk ca ak ronam ñu naan ca bisub àllarba ba daldi naawaat lu ma junniy at ba àgg ci tabax bu rëy ay lal yu yëkkatiku lool nekk fa ku ci nekk toog ci benn lal ñu andil leen naan gu ñuy wax sanjabil ñu naan ca bisub alxamis mu daldi taw ci seen kaw taw boo xam ni subhanahu wa moo ko bind ca aynul baax yi at ay yére junniy at ay wurus wurus wu ci nekk ay jigéen yor ko ñu daldi naawaat lu mat junni at ba agg maqaadu sidix bisub ajjuma toog ci maaidatul xuldi su ko defee raxiixun maxtuumu oo miskun wàcc ci ñoom ñu naan lii nag képp ku jàng bismillahi rahmaani rahim ànd ak sellal tey moytu bàkkaar yi tey jëf ndigal yi moo leen moom bokk na ci mbooti bismillahi rahmaani rahim fukki araf la ak juróom ñeent malaaka yi wattu sawara itam noonu lañu toll képp ku wax bismillahi rahmaan rahim sunu boroom musal la ci ñoom ba tey sunu boroom daa bind guddi ak bëccëg ñu nekk ñaar fukki waxtu ak ñeent farataal itam julli juróom ci juróomi waxtu te xarafi bismillahi rahmaan rahim dañuy far bépp bàkkaar bu am ci waxtu yooyu ba tey nee nañu sunu boroom am na ñetti junniy tur benn junni bi malaakay keppo alayhimusalaam ñoo ko xam benen junni ba yonantay kep alayhimu salatu wa salam ñoo ko xam ñetti téeméer ya ca tawreet la nekk yeneen ñetti téeméer ya ca linjil yeneen ñetti téeméer ya ca sa boor juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ya ca alquran la nekk benn ba ca des sunu borom moo ko jagoo waaye ñetti junni yooyu yépp ñi ngi ci bismillahi rahmaani rahim képp ku ko xam wax ko mel na ni tudd na yàlla subhanahu wa taala ci turam yépp ba tey bokk na ci mbooti bismillahi rahmaani rahim mboolem li am ci la jóge ci lay taxawe moo tax kuy bari lu mu koy wax mbindeef yépp dañ koy wekk ñi ci kaw ak ñi ci suuf ko xam li ci nekk ci mbóot bind ko du lakk ci sawara bokku na ci ay jagleem képp ku koy wax ngir haajo ju mu mën a doon rawante naag lu jëm ci wërsëg sunu borom dana ko faj wërsëgal ko fu mu ko foogewul texul yépp danañ ko wek ñi ci kaw ak ñi ci suuf ku jàng bismillahi rahmaan rahim ñaar fukki yoon ak benn buy tëdd sunu borom dana ko musal ci seytaane ca guddi googa ak lori jinne ak nit akub sàcc akub lak ak deegu bette ak bépp balaa ak i gàkk képp ku jàng bismillahi rahmaan rahim ñeen fukki yoon ak benn tifli ko ci nopp ko dof wala kuy say dana daadi amaatum xel ku jàng bismillahi rahmaan rahim juróom fukki yoon ci kanamuk ab tooñkat sunu boroom dana ko toraxal dana tàbbal am tiit ci ab xolam ba dana la wek te du la lor ba na jàng bismillahi rahmaan rahim juróom ñaar fukki yoon ak benn ci yene ju sel ngir baawu naan ku jàng bismillahi rahmaan rahim téeméeri yoon ci mettit wu mu mën a doon wala ku ñu liggéey lu mat juróom-ñaari fan yu tegaloo wala lu ko ëpp sunu boroom dana dindi loola ku jàng bismillahi rahmaan rahim téeméeri yoon ak fukk ak ñett bisub aj juma bu imaam nekkee ca kaw min bar daa di ànd ak imaam buy ñaan ñaanaale haa joom dana faju ku jang bismillah rahmaan rahim bu jant bi di genn ci bisub jublu xibla lu man ñetti témèr ak fukk ak ñett te moy limu yonantey alayhi musallatu wassalam bu noppé julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi ali wasabi wasalama témèr yon sunu borom dana ko wërsegal fu mu ko fogéwul ci ak baxam képp ku sax di jang bismillahi rahim ci ab limam te mooy juróom ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar ànd ak yéene ju sell ngir xaajo jujjëm ci yàlla subhanahu wa taala mel ni am ngërëmam wala lu mel ni jeñ lor ci am noon wala xëcci wërsëg wala ak tonawu bu soobee yàlla subhanahu wa taala loolu muy sàkku dana ko am ba tey ku saxal lu mat ñeen fukki fan di jàng bismillahi rahmaan rahim ginnaaw julik suba ñaari junni yoon ak juróomi téeméer ànd ak pas-pas bu wér tey bàyyi xal ngëneel yi ci nekk ak jagle yi sunu borom na ko ubbi ci ab xolam ba muy xam di gis yu nëbbuy di xam yeneen xam-xam ak i mbóot kuy jàng bismillahi rahim junni yoon bis bu set sunu borom faj aajoom ci ak jàppandul ci adduna ak alaxira képp ku ñu jàpp wala mu am njàqare bu dee dee jàng bisimilah rahmaani rahim junni yoon guddeeg bëccëg sunu borom dana ko dindil njàqare joojee te dees na ko tijji doonte dañ ko waroon a rey ba tey ku jàng bisimilah rahmaani rahim junni yoon ci ndoxum taw jox ko ko bëgg mu sopp la dana la sopp lool ba tey ndox moomu boo ko joxee ko xelam naqari mu koy naan lu mat juróom ñaari fan bu jant di fenk xelam dana neex ba lépp lu mu dégg dana ko mokkal bu soobee yàlla subhanahu taala ku bind bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak benn takkal ko gone guy tiit ci ay nelaw dana deñ ba tey dana wattu képp gépp gone gu ko takk ci gaar gaar yépp ku bind bismillahi rahmaani fanweeri yoon ak juróom takk ko ci am néeg seytaane du fa dugg ak ginne te dana bari barke te dana dolli alalam te dana ko musal ci jëpp lor ba tey loolu boo ko takkee fa ngay jaaye da nga gis ak dolliku te da nga mucc ci bëtiñu iñaan ñi ak ñiy tooñ boo bindee bismillahi rahmaan rahim ci bis bi njëkk ci tam xarit téeméeri yoon ak fukk ak ñett takk ko da nga mucc ci bépp ñaawteef yaag say waa kër li feeg yaa ngi dund boo bindee bismillahi rahmaani rahim téeméeri yoon ak fukk ak ñeent takk ko sa xaajo faju te mel mbindéef du la lor te buur yi danañ la wekk te dana la musal te dana musal sa alal ak say doom ak sa waa kër boo bindee bismillahi rahmaani rahim téeméeri yoon ak benn ci këyit wu weex sul ko ci ab tool dana meññ te dana baax dana mucc ci mbooleem gàkk yi bu neexee yàlla subhaanahu wa taala boo bindee bismillahi maaleem junni yoon takk ko say nooñ dana la ragal lool nit ñépp dana la teral sopp la sunu boroom dana la ubbil bunti wërsëg yi may la kóolute ak jàmm faaw ba tey lii ay mbóot la yu yéeme ci moom boo bindee bismillahi rahmaan rahim juróom ñaar fukki yoon suulaale koog ab néew mu nekk ci càngaay la deesu ko mbugal te daañ ko woyafayalal laajug malaaka yi boo bindee bismillahi rahmaani rahim ci rasaas ñetti yoon ñaw ko ngir napp ay jën boo demee ba ca géej ga boo sànnee jën yépp danañu ñëw di dugg ci biir mbaal gi ba fees dell ba ëpp la nga bëggoon boo bëggee buur yi terel la sopp la wala atte kat yi wala nit ñëpp wala nga bëgg dajeeg buur yi ngir say soxla da ngay woor bisub alxamis dokki tàndarma ak sukkër jàng bismillahi rahmani rahim téeméer yoon ak ñaar fukk ak benn ginnaaw jullit timis di wéy ba tey di ko jàng ba nelaw boo jullee suba ci bisub ajjuma bi jàng bismillahi rahmani rahim téeméer yoon ak ñaar fukk ak benn daa di bind ci saxfaraan ak misk ak ma uwardi bismillahi rahmaan rahim ñaar fukki yoon ak benn ci aw këyit waaye nii nga koy binde muy da ngay tàqale araf yi da ngay def baa ki nii def siin nii ñu bañ a tekkal ko miim nii noonu nga koy def ba rahim gi mat soo noppee suur ko cuuraay takk ko képp ku la gis dana la sopp lool boo bindee baag bismillahi rahmaan rahim baag rek ngay bind ñaar fukki yoon ak benn maam nii nga koy bind muy baare ngay bind ba man ñaar fukk ak benn tiim ko jàng ci bismillahi rahmaan rahim téeméeru yoon ci yéene ju dëgg boo nappee teg ko ci sa alal dana yokk barkeel itam dana yokk dana barkeel boo bindee allah baatullahi rek ci am ndab lu set ba mu fees nga def ca ndox wis ko kuy say saytaaneem lakk boko wisé kuy say am saytane diko japp day lak ku jiit fet wala jaan mat ko dañu koy bindal bismillahir rahmanir rahim buñu dok xam nañu tekkale araf yi ni comme nañ ko defo waxawon ci ginaaw bu noppé tekki salamun ala nuhin fil alamin buñu dok momit mom dañu def siin tekki lam ni ber ko tekki mim non nañu def ba arafite bu noppé def ca ndox mu naan ko dana daldi wër bo bindé arrahmani ar jàng ca yaa raxmaanu téeméeri yoon ak juróom fukk tifli ko ca daa di koy takk boo dee dem ci buur wala ab tooñ kat do na lor boo bindee ar raxmaan yi dog ko muy da ngay def alif nii def laam nii def raa nii xaa lonku defaat yaa nii ku beru teg ci miim xam ne da ngay dagg araf yi nga bind ko lu mat ñaari téeméer ak juróom ñett fukk takk ko jeesi wala laneen du la mën a dagg boo koy bind danga koy tegale ni mu ware boo koy bind danga koy tegale ni mu ware te refet njot bu sa bopp di metti da ngay bind arrahmani dog ko ñaar fukki yoon ak benn ñaar fukki yoon ak benn nga ko bind waaye da ngay dog arafi takk ko sunu borom dana la saafara wax na nu ñu xay sar buurub róom mas naa bind sayidina omar ubnu xataab radiallahu taala ab bataa xel ni ko sama bopp day faral di metti lu bari lool te faj kat yi mënuñu ci dara yónnee ma saafara boo ko amee mu yónnee ko am mbaxana ngir mu koy teg ci boppam muy def bu ko solee du yëg dara muy def bu ko solee du yëg dara bu ko dindee tàmbulee yëgaat aw mettiit mu yéemu lool ba di ko gëstu fekke ca aw këyit wu ñu bind bismillahi rahmaani rahim ba tey sayiduna omar radiallahu bi mu yónnee omar ibnu aasi misra ngir mu doon seen kilifa diine radiallahu taala ba mu demee daa fekk dex ga du daw mu laaj waa misra ñu ni ko noonu mooy xaadaam at mu nekk dañuy waajal jigéen ju mata sëyi ba mu rafet kilifaam ànd ci bu ñu ko sànnee ci dex gi mu daw mu ni leen loolu xaaday jaahiliya la daa di bind bataaxel sayiduna omar radiallahu taala anu wax ko ko mu daa di bind bismillahi arhamaani rahim yow niil boo dee daw ci lu dul ndigal amunu ci yow aajo boo dee daw ci ndigal nag dawal bañ ko sànnee ca dex ga mu tàmbalee daw haada joojee yàqu ba tey jii ci barke bismillahi arrahmaani rahim nee nañu firaw na njëkk mu daan woote ak yàlla daa tabax tabax bu rëy wax ni nañu def bismillahi rahmaani rahim ca bunt bu mag ba bi mu tàmbalee woote ak yàlla sunu boroom yónni sayiduna muusa alayhi salaatu wasalaam ngir mu woo ko ci ak gëm yàlla subhanahu wa taala nanguwul sayiduna muusa alayhi salaam ni xam ma ci moom aw yiw lan moo tax nga yeexe ko yow saa boroom mu ni ko yow ak weddeem ngay xool bëgg ma xala ko man maa ngi xool li mu bind ci buntu këram bi loolu dana nu xamal ni ku bind loolu ci buntu këram dana am kóolute doonte ab yéefar la ndax ki bindoon loolu ab yéefar la te gis nanu ni ko sunu boroom maye ak wóolu ci àdduna ba tey bokk na ci mbooti bismillahi rahmaani rahim yonente bi sallallahu taala alayhi wa nee na sunu boroom bi mu bindee xalima ga da koo defaral téeméeri poñ poñ bu nekk ak moroomam mat doxub juróomi téeméeri at bi ko sunu boroom xoolee ci ak ragloom mu xar mu nu ko bindal ci alliwa ji lépp lu nar am ba bis pénc mu ni ko lu may njëkk a bind mu ni ko bindal bismillahi rahmaani rahim mu bind ko ci juróom ñaari téeméeri at sunu boroom ni maa ngi giñ ci sama tedd ak sama màgg képp ku bokk ci xeetu yonente bi bu waxee sallallahu alayhi wa bu waxee bismillahi rahmaani rahim benn yoon danaa ko bindal jaamu yàlla juróom ñaari téeméeri at ba tey yonente bi sallallahu taala wa alihi wa nee na sunu boroom bi mu bindee xalima ga ak alliwa ja daa wax xalima ga dikkal mu dikk mu ni ko yow xalima gi mu ni ko wuyu naa la yow saa borom mu ni ko bindal bismillahi rahmaan rahim door a bind laneen ba mu bindee baaga leer gu mag génn ca leer gu mag génn ci moom ba leelar xaras ak lépp mu ni saa borom lan mooy baagi mu ni ko loolu xeetu mohammed sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama dong ñoo ko moom ni ko bindal mu bind siin lu mat ñetti leer génn ci benn banaa wuti aras benn banaa wuti kursur benn banaa wuti àjjana mu ni ko saa boroom lan mooy leer yi mu ni ko loolu mooy leeri mohammed sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama leer ginnaaw wuti aras mooy leer ñi jiitu ci aw xeetam leer ginnaaw wuti kursiyu mooy leerug ñi digg doomu ci aw xeetam leer gi naa wuti àjjana mooy leerug ñii moy ci aw xeetam ak ñi tooñ ni ko bindal miim mu bind miim leer gu gën a rëy ci ba leeral fépp la xaras ba kursiw xalima gi taxaw lu ma junni at di yéemu ni saa boroom lan mooy leer gi mu ni ko loolu mooy leerug muhammad sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi samab xarit sama yonente sangub yonente yépp mbindeef yépp moo tax ma bind leen xalima gi ba mu déggee loolu bëgg nuyu muhammad sallallahu alayhi ba mu diisoog boroomam mu may ko ndigal mu ñëw ni ko maa ngi lay nuyu yow yonante bi yàlla bi yow xaritub yàlla bi yow leerug yàlla gi sunu boroom ni ko yaa ngi nuyoog moom waaye nekku fi bu fi nekkoom delloo waaye wat man maa koy delloo ab nuyoo daa di koy digal mu bind allahi rahman rahim mu ni ko saa boroom lan mooy tur yi mu ni ko man maa yàllay ña jiitu te yërëm ñi digg doomu te yërëm ñi moy ba tey yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama neena sunu boroom daa digal xalima gi mu bind bismillahi rahman rahim ba mu ko bindee ak leer génne ci ak leer génne ci siin gi mu bind ci ay malaaka alayhim malaaka mu nekk am ñeenti téeméeri junni bopp bopp bu nekk am ñeenti téeméeri junni kanam kanam gu nekk am ñeenti téeméeri junni gimiñ gimiñ gu nekk am ñeenti junni làmmiñ ñoom ñépp ñu bind bismillahi rahmaani rahim ci seeni kanam ñuy wax ci làmmiñ wu nekk bismillahi rahmaani rahim mala ko nun mu nekk lu ma junni sàppe wër ko di xool ab jëham naan bismillah rahman rahim sunu borom yal na nga yërëm te jéggal képp ku kuy tàmbali lëf wax bismillah rahman rahim ci xeetu yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salam sunu borom ni leen séeréel leen bu wér ni jéggal naa leen te danaa barkeel seeni jëf dana nangu itam seeni iw dana bayyi seeni ñaawteef duma leen ci topp ba tey bokk na ci mbóot yi képp ku yëkkati turu yàlla subhanahu wa taala ci suuf sunu boroom dana yëkkati aw turam te dana ko tudd tudd gu rafet yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nena bépp téere boo xam ni turu yàlla subhanahu wa taala da caa nekk wala baatub alquran bu ñu ko wàccee fi ab bërëb sunu boroom day yabal ay malaika ñu koy wattu ci seeni laaf ba xaritub yàlla ñëw yëkkati ko képp ku yëkkati aw it bu turu yàlla nekk subhanahu wa taala wala baatub alxuraan sunu boroom dana la yëkkatil daraja ju kawe ci àjjana yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam neena na ku yëkkati aw kayit wu bismillahi rahmaani rahim nekk ngir màggal yàlla subhanahu wa taala ak bañ ñu koy sunu boroom dana la boole ci siddix ya siddix ya ñoo topp ci yonente yi alayhimu salaatu wasalaam dana woyafalal sa ñaari way jur am mbugal doonte ay yéefar lañu mansuur rahimahullahu mas naa gis këyri wu ñu bind bismillahi rahmaani rahim mu nekk ci suuf mu for ko amul fu mu ko teg mu lekk ko ba mu tëddee gént am ku koy wax ubbil nañu la bu waare ak xekkam loolu lenn la ci ay mbooti bismillahi rahmaan rahim ak i jegleem yi nga xam ni yemuñu fenn